mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo réew mi fm 97 point 5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi di dalal Lamine Gueye di chef de cabinet maire bu gore ñu war a waxtaane ponk yu bëri rawatina tolluwaayu gore ak askan wi jafe-jafe yi muy jànkonteel ak wàllu réalisation ak jàngoro ji di covid 19 ban jeexintal la ci tourisme wi ak yeneen i poñ laata loolu sax Lamine Gueye di chef de cabinet di maire de gore ki fare ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo Diallo Lamine Gueye ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maas maa ngi leen di pay di leen jox ziar. di mhm. teg seen wàccuwaay. Mhm. ñu bàyyi la nga nuyoo ak euh, auditeurs yi. di nuyu auditeurs yi réew mi point 97 euh, point cinq réew mi FM. di leen leen jox nuyoo waa Gorée yëpp. mais mhm. voilà di leen ñaan na ngeen déglu ñu ñu waxtaan. ci mhm. mbirum Gorée. ñu ko mhm. soxal ak soxla Gorée. laata loolu ñu laaj la wàllu présentation Gorée fan la féete ak ñaata doomu aadama ñoo fa yeewoo. waaw Gorée mi ngi nekk ci euh, Dakar en fait ci est Dakar. soo demee ci trois kilomètres cinq cent si digganteem ak Dakar. donc mun naa ne am na ñaari junni nit. Mhm. di fay yeewoo ci xayma mën mhm. naa am ëpp na ko tuuti sax parce que mhm. ba nañu ndaw torop ci xayma rek dañuy joxe ñaari junni nit yu fay yeewoo daal en permanence gis nañ ni Gorée ab localité bu historique la gis nañ daanaka chaque année dañuy da ngeen am ay visite ci wàllu tourisme local bi ak naka noonu gis nañ mairie bi Augustin Senghor moo ko jiite ci atum 2002 ba 2021 léegi askanu gore yan jafe-jafe lay jànkoonteel ak wàllu enclavement bi jafe-jafe yi am ci gore ci enclavement bi mun naa ne ne barewul sax parce que bon xayma la tànn nañ ko parce que Gorée bi muy am. Mhm. xëy na amul woon li dessert liaison maritime Dakar gore bu mel nii. Mhm. mais léegi am na te am na ñetti chaloupe bi fa nekk. Mhm. amaana ne doyul parce que loolu mooy jafe-jafe yi parce que day nekk ci difficulté ennui technique yi la bateau yi di am. te loolu li ko waral mën na ne at ak genn wàll gi ñu génn. Mhm. amul woon peut-être benn rentrée d'argent. parce que mhm. ñoom bi ñu waxee ñoom loolu la ñu tegal ne ñu dañu am ay soucis ennui technique ak mécanique te amul woon rentrée d'argent pour ñu mun procéder à des mhm. ci loolu beneen jafe-jafe enclavement bi mooy ne dañu am ay heure ay heure moo ñu tënk. ci ay heure nañu am pour jug pour dem ak dikk. Euh, waxtu yooyu yan waxtu la. boo am na fukki rotation ak ñaar moo am par bés. mais rotation yi day commencé six heures et demie du matin. Mhm. bi mujjee baa ngi arrêté samedi une heure du matin. mais mhm. ci intervalle euh, en semaine am na buy arrêté vingt trois heures. Mhm. vingt trois heures trente minuit. àjjuma mais nag heure yi moo xala defee parce que bon bi muy am bu ba gore melul woon nii développement melul woon nii. mais léegi euh, le monde évolue affaire yi di dox donc dañu wara dox parce que léegi waxtu bi war nañ mun a toog. Mhm. waxtu bu nekk war na mun a am benn rotation bu jógee Dakar dem Gorée. ni mhm. vice versa. yan kilifa ñoo jël dogal ci wàllu waxtu yi. bon kilifa yi jël dogal ci waxtu waxtu bi xat bon dañ koy yónnee état wax ko état wax ko port. Mhm. ak euh, commission contrôle bi nga xam ne moo say toppatoo affaire liaison maritime Dakar gore ñu xoolaat ci loolu. xëy na de soo leen waxee dinañ leen ne xëy na amul rentrée d'argent que mais mhm. monde bi mooy évoluer ni mhm. monde bi di évoluer tamit yëf yi dafa a changer mhm. parce que bi ñu tënk woon ci fukki waxtu ak ñaar wax léegi munoo toog comme xoolal exemple nga war am rendez-vous Dakar dëkk Gorée am rendez-vous Dakar onze heures soo génnul Gorée huit heures doo dem rendez-vous te sa rendez-vous su jeexee onze heures demi midi. Mhm. soo jëlu sel midi et demi deux heures et demi ngay jël moo tax donc léegi dañ ne chaque waxtu. Mhm. xëy na mais mënuñ ko def chaque dix minutes quinze minutes. Mhm. mais chaque waxtu war na mun a am benn rotation. est-ce que luy expliquer loolu bokkul ne chaloupe yi ñoo doyul. chaloupe yi doy na parce que ñetti chaloupe la am. chaloupe yi doy na te xëy na mun naa ne chaloupe doy na mais dafa am ay jafe-jafe technique. lu ñu war a réparer la parce que da ngay daw gis ne am na mu ngi sooxe. état bi nag diggoon nañu fi benn chaloupe bu bees. Mhm. waxoon nañ ñu ko de boobu ba léegi nag ñun ñu ngi toog di xaar. bon mhm. xëy na nag du priorité actuellement ni mhm. soo xoolee sur le plan sanitaire. pandémie bi envahir monde bi yëpp. na Sénégal te ñun dëkk yi en développement la ñu. donc xëy na chaloupe bi mënatul nekkati priorité. est-ce que mais ah, war nañu mun a xalaat ñetti chaloupe yi fi nekk nu ñu mun a xalaatee. def ay rotation yu bare mais ak Covid bi est comme amatul nit tamit. Mhm. bon mun nañu xaar ñu stand by tuuti. Mhm. mais ba ci kanam mais loolu lu ñu war a mun a waxtaanaat la. xoolaat ko ni ñuy def ba rotation yi chaque heure mu am benn départ bu jógee Dakar dem Gorée aller retour. est-ce que entre temps par exemple jéem ngeen solliciter état bu Sénégal. solliciter nañu état bu Sénégal depuis bu yàgg te xam nañ ko te xam nañu problème mbabitu Gorée. e taxawoon nañ si parce que état bi joxoon nañu ay promesses fermes dinañ am chaloupe bu bees. mais ñu ngi koy xaar mais faf yàlla def na pandémie bi ñëw. ça po un peu gis nañ ni mu def économie mondiale bi waxtu ma laa suñu dëkk yi nga xam ne en voie développement la. bon Gorée son suñu sago mhm. ah ñu amal suñu sel bu bopp mhm. xëy na dans le cadre partenariat ak coopération yi nañ dox ba am gaal ba suñu gaalu bopp boo xam ne chaque waxtu mun na dem wala chaque trente minutes mu dem mhm. loolu bokk na si suñuy xalaat ak suñuy yeyitee mm, si je comprends bien salu bi kon Gorée moomu ko salu bi Gorée moomu ko salu bi dafa nekk euh, benn euh, kuréel la buñ ko jox muy liaison maritime Dakar Gorée bu dépendre ci port mu am commission contrôle ay secteurs yu bare si bokk donc ñooñu ñooy toppatoo mbirum chaloupe bi. Mhm. parce que su fekkoon ne chaloupe bi Gorée moo ko yor xëy na jafe-jafe Gorée yu bare dinañu wàññeeku. Mhm. parce que amaana yéen xam ngeen Gorée li ngeen ne tourisme ni ñuy bare. ni ñu koy mhm. recevoir si bés. su fekkoon ne chaloupe bi ma Gorée ko yor mun nañu propriété tam xëy na du ñu ñàkkati koom-koom dinañu mun a defar lu bare bare bare bare. rien que Chaloub bi rek mu suñ fekkoon ne moom nañ ko mun na sañ naa wax ne Gorée mooy nekk la commune la plus riche par terre d'habitant mhm. kon koppar yu jógee ci wàllu Chaloub bi demul euh, demul ci boobu les localités kon est-ce que jotul ngeen jéem a xool ndax ngeen di def ba wut seen Chaloub bopp pour recettes yi mën di dellu si ci gore loolu ñu koy xalaat ñu ngi koy xalaat mais comme ni ñu la waxee ne ci cadre partenariat lañ ko mun a amee ak ndimbalu état. pour ñu mhm. am suñu chaloupe boo xam ne Gorée koy moomal boppam. Mhm. ressource ñàkk dem ressource mooy gis taxe boobu nag moo xam ne indi coow nit yi di fay. Mhm. koo ko ci fayloo mu kii non seulement Gorée dafa nekk patrimoine mondial. nekk enclavé. amul industrie amul infrastructure ba pare nekk commune de plein exercice. amaana am na fa quelque ñetti juróom-ñetti restaurant yi fi nekk mais mhm. loolu mënul indi d'argent pour commune bi mhm. et commune dafa war a nekk gestion bi c'est en recette et en dépense les mhm. yi nag yaa ko imagine yàlla def code des collectivités territoriales am na ay taxes yu mu prévoir surtout que Gorée site patrimoine mondial la ci loolu la mairie bi conseil municipal bi délibéré woon instauré benn taxe de cinq cent francs section de services municipaux ñuy ñaan doomu Sénégal yëpp suñu ñëw tee Gorée suñu leen ko fayloo ñu fay xëy na ni ñu koy fayee ko moo xala ñaaw mm. parce que wàcc sóoruloo ko woon ñu ne kaay jàdd fi dafa am taxe booy faytoo parce que ñoom ñëpp comme ni nga ko xalaatee léegi dañu foone chaloupe bi recette ñu goree ko moom donc mm. pourquoi ñu fay chaloupe bi pare wàccaat di fayaat taxe mm-hmm. loolu moomu te ñu ngi ñaan état bi promettre nañu wax directeur port ba ñu wax ñu ne taxe bi dañ koy dugal ci ticket chaloupe bi. Mhm. parce que ñaaw na trop des fois xëccoo yi am ni ñu koy xëccoo xuloo clients yi pour ñu fay taxe bi wala visiteurs yi. Mhm. mu doon image bu ñaaw. ñu mhm. koy ñaawlu ñun suñu bopp waa Gorée ci mairie bi askan bi. mais nag loolu tamit luy jàppale dëkk bi la parce que sur le plan environnement gestion cadre bi aménagement infrastructure yooyu yëpp dañ koy investiraat ci dëkk bi parce que koo ci wax soo xoolee léegi yéen mi nekk ci xarala yi mhm. gis ngeen yéen clip yu bare ñu ngi koy tourné see gore mhm. image film yu bare ñu ngi koy tourné see gore mhm. donc su amuloon communauté vivante bi fa nekk di liggéey di defar cadre de vie di aménager ba ñu mun a ñëw mu rafet ñu mun ko taamu pour tourné fa seen clip yi wala tourné fa seen film yi dina doy waar mhm. looloo tax nag ñuy ñaan mhm. état bi jàppale ñu comme ni ñu ko promet waxtoon taxe bi ñu dugal ko ci ticket chaloupe bi mhm. mu nekk benn yoon pour ñëpp nga xam ne dootul euh, soo fayetee ticket chaloupe bi rek jeex na et loolu dina permettre peut-être dina maximiser optimiser dépense euh, recette yi commune bi mun a am parce que des fois mu am xëccoo nga mujjee bàyyi ñii ñu fay ñii duñu fay c'est normal parce que amuñu ko woon doo leen yóbbu police bu fay cinq cent bi yoon ñu ko est-ce que par exemple communication bi jàll na. bu fekkee communication bi jàll na problème jafe-jafe warul mën a am. communication bi jàll na parce que euh, depuis 2004 amoon na temps xam nga ko fii léegi ñëpp réseaux sociaux yi la waxee. mooy li may wax rek développement monde mooy évoluer. Mhm. réseaux sociaux yi ñëpp dugal nañ ko si dugal nañ si am na ay RFI bind nañ si am na ay reportages yu ñu def. Mhm. amoon na sax jamono joo xam ne demoon nañ fi sax ak nguur gi. Mhm. à travers euh, ministère kii euh, tourisme ba ci conseil d'état pour ñu dindi taxe bi. mais yàlla dafa def nekk ñu dañu ñaan état jàppale ñu dugal ko ci ticket chaloupe bi nu mu gënee gaaw a gaaw mm-hmm. ndax au moins su boobu jotee suñu chaloupe bi amee fukki nit xam nañu am na fukki taxe ñu mm-hmm. fay su amee juróom benn xam nañu am na juróom benn mm-hmm. tax bi et loolu dina permettre ñu régler problème bi nga xam ne dañuy dafa ñaaw comme ni ko waxee sànq soo wàccee ba war a def ñu dab la xëcc la ne la kaay da ngay fay taxe fii wala dafa am looy joxe fële te comprendre loo ko sóoruloo ko mais soo fayee traversée bi rek ticket baa ngi ci biir traversée bi actuellement ñaata la traversée pour sénégalais yi mille cinq cent la pour africains yi deux mille cinq cent la pour européens yi c' cinq mille deux cent. cinq mille deux cent. donc suñ ko defee arrondir ko cinq mille cinq cent deux mille sept cent donc lu nekk après da ñëw jël sa téeméer rek. soo mhm. compter suñu amee fukki nit. Mhm. téeméer multiplié par fukk nga jël li nga moom ñoom ñu jël li ñu moom. Mhm. au li nga wax sànq gis nañu salu bi recette gore moomu ko alors localité bi fan lay jëlee ay koppar pour mën a def ay liggéeyam. sànq wax naa ci njëlbeen ba. ci mhm. partenariat coopération décentralisée. Mhm. li ñu fiy réalisé. Mhm. suñ la waxee ne Gorée dafa réalisé doo ko gëm parce que dañu ne amuñu fu ñu jëlee recette. mais dans le cadre partenariat coopération réalisé na loo xam ne. su naroon jaar million fii si Gorée milliard la fay coûter. parce que contexte yi moo dul benn. Gorée site patrimoine mondial la. munoo fa tabax noo xam ne daf la neex. munoo changer cadre de environnement yi. munoo changer euh, architecture bi. ak les couleurs yooyu dafa am solo. Mhm. donc soo koy def dafa am euh, bureau des architectes euh, monuments architecte euh, baam mhm. bureau de pat bureau du patrimoine mhm. muy contrôler nga war a am ay chartes yoo war a respecter pour normes de construction yi. te Gorée soo gisee yaatuwul. amatul terrain amul espace comme zone yi gis nañu jékki-jékki rek wax xàll ne zone bi def nañ ko ZAC bi wala dara. loolu amul ci Gorée. am na loolu tamit beneen jafe-jafe la. Mhm. loolu tamit beneen jafe-jafe te bëggoon naa ñu waxtaan ci tuuti si la. Mhm. est-ce que par exemple lim nga ko yeneen jafe-jafe est-ce que waxtaan am na si wàll wi. waxtaan am na ci wàll wi ci surtout jafe-jafe bi mag nag ci wàllu dëkkuwaay la. Mhm. parce que tey amaana am na ñu bare ñu ngi nekk gore mm-hmm. ñii ñoo moom seen titre foncier mm-hmm. ñii ay euh, location la mm-hmm. ñii bàyyi la mais majeure partie gore dañu dugg ci ay bâtiment yoo xam ne bâtiment administratif la yi nguur gee ko moom yi mairie bee ko moom ñu dëkk fa lu mat juróomi génération wala lu ko ëpp donc ñuy ñaan état surtout ak ministre l'urbanisme euh, habitat bi nga xam ne cadre aménagement cadre bi mi ngi am programme cent mille logements bu mm-hmm. état bi mm-hmm. ñu ne leen ah Godé de yaakaar naa ne war na si mun parce que tuuri Godé réy na trop ci àdduna bi boo xam ne mm-hmm. yaakaar naa Sénégal suy dem sax des su yóbbuwaalee Godé rek su ko waxee war na mun tax ñu xam fan la Sénégal existé na parce que Godé rek ñëpp ko xam soo xoolee fi mu jaar jaaram bu njëkk ma ci histoire moo tax soo duggee ci internet suy dem dina utiliser gore te gan boo am ci Sénégal fu muntu jóge ci àdduna bi mhm. su fekkee ne sax pour ñeenti minutes dina ñëw aller retour ñëw gore mhm. visiter delluwaat mhm. mais nag ñuy ñaan état ci programme cent mille logements bi ñu wax hmm. ñu xam ne Gorée ngi fi si la ñu bokk war nañu mun a am waxtaan ak ñoom hmm. ñu xool nu ñuy dugalee Gorée ci programme boobu parce que dina dem ba benn moment boo xam ne dina doy waar daal su si bi jugul jàppale ñu jàppale mairie pour le moment kenn associé wu leen ci boobu le bon ñu ngi xaar programme bi lancé na cent mille logements hmm. ñu ngi xaar ah Godé daal mi ngi fi. Mm-hmm. jotoon nañ nag ay enquêteurs yu ñëwoon wàcc si dans le cadre ministère environnement urbanisme. Mm-hmm. pour xool dëkkuwaay yeex yooyu. Mm-hmm. donc ñun daal ñu dañuy rappel. fàttali daal ne Gorée mi ngi fi. si programme cent mille logements yi war nañ ci xalaat wala su amoon zone boo xam ne sax dagg nañ ko ne site bi Gorée parce que dinañ tollu jamono yoo xam ne les gens seront obligés de partir. Mm-hmm. parce que bâtiment yi moomuñu ko état moo ko moom dinañ toll jamono boo xam ne il faut ñu génn. Mm-hmm. ñu defaraat ko parce que dafay menacer danger. Mm-hmm. et bés bu amoon écoulement foofu dafa baaxul sax xam nga dafa pour Gorée mais pour Sénégal. parce que Gorée patrimoine mondial la. ñu toog ba ay bâtiment di daanu ci ay nit. dina doy waar ci Sénégal ak ci monde bi. donc euh, moo tax ñuy ñaan ñu teel a ñëw a waxtaanaat ñu xool ñu leen Mhm. dañ koy ñaan nag mhm. wax ñu ne priorité mais dañuy ñaan yàlla na leen lu war a mun nekk la yàlla na leen ministre bi dégg ah, alors euh, au delà aspect yi nga tugg euh, yan jafe-jafe ngeen gën a jànkonteel est ce que par exemple Gorée dina jànkonteel ci wàllu assainissement ak surtout ci wàllu environnement ci wàllu environnement foofu mun naa ne en fait je chapeau euh, à, à l' d' assainissement de Gorée mhm. am nañu lu tolloo fanweeru xale ak lu topp yoo xam ne chaque matin à partir de sept heures ñoom ñooy mais remercier au passage UCG parce que mhm. jëlal nañu une dizaine de jeunes de Gorée boole ko ci mhm. ñu nekk ci biir ñoom ñooy toppatoo affaire assainissement bi mhm. ci wàll woowu Gorée depuis euh, bientôt léegi dix ans dañu am benn projet système de management environnemental gestion et traitement des ordures parce que amoon na jamono joo xam ne Gorée képp ku fa wàcc chaque jour dinañu recevoir deux mille à deux mille visiteurs ci vacances yi mais si tourisme bi daan donc léegi saleté yi ñu daan indi mbalit yi mbuus yi ak déchets yooyu yëpp dañu ko daan sànni après ñu koy jël di ko sànniwaat ci rivage ci xeer yi muy dellu siwaat mhm. mais léegi fii depuis juróomi at fukki at li si ginnaaw mhm. loolu amatul mhm. xale ñu ngi formé dëkk bi ñu ngi waxtaan ak ñoom kër gu nekk ci Gorée dote nañ la ay poubelle pour nga def tri sélectif xale yi suñu jaaree récupérer ko mhm. yii dem ci ordure ñu def ko ñu récupérer li dem ci compost ñu def ko li si mhm. des am nañu gaal bu ñu jënd mhm. ak ay big bag dañ ko ciy sol ba mu fees chaque jour ñu acheminer ko yóbbu ko Dakar ci port wàcce ko oto UCS jël ko mu dugg ci circuit bi ci loolu tamit bu wax la sànq comme ni ma ko waxee ci cadre partenariat coopération décentralisée am nañu benn grand projet ak Grand Nancy ci loolu xam comme ni ma la ko Mm-hmm. donc euh, assainissement am nañ ci wàllu problème parce que ñu bari dëkkuwaay yu bari amatuñu woon assainissement. Mm-hmm. mais léegi ñu ngi jug di liggéey ci loolu ak benn euh, projet bu ñu amal ak Grand Nancy. Mm-hmm. ñu ngi jàppale ci loolu ci financement bi ñu ngi ci phase étude yàlla mais ba mu sotti. des na tuuti gore dootu amati problème assainissement dootu amati problème refoulement eaux usées dootu amati dara. parce que léegi beneen bi mooy arrivé à zéro plastique. parce Mm-hmm. pour mun a defar des papiers des sacs plastiques yoo xam ne kuy ñëwati Gorée soxlawul ngay ngi ay mbuusi plastique parce que plastique déjà am na loi bu ko interdit woon mm-hmm. te xamuñu lu tax ba léegi mettre ko en application parce que foo romb nit yaa ngaa du mbuusi mm-hmm. plastique donc ñun ñu ngi avancé si loolu di liggéey ak ay partenaires pour am ay euh, système de d'emballage yoo xam ne di ko mën a utiliser réutilisable ba xam ne du yàq ndax plastique bi ñëpp xam nañu c'est nocif à Mm-hmm. baaxul pour la société daal. Mm-hmm. ci wàllu assainissement ci wàllu environnement lim nga ko sànq seetlu nañu maître Augustin Senghor mooy seen maire ci atum deux mille deux ba deux mille vingt et un est ce que ci euh, li mu toog ci bopp localité yi est que mën nga ñu jukkil maanaam ci wàllu réalisation yi nga xam ne da nga koy teg suñu loxo ni maître Augustin Senghor lii moo ko defal askan ba yeewoo ca gore waaw mën naa ko wax parce que bi ñuy ñëw comme ni ma ko waxee xale yooyu ma lim léegi rek ci assainissement. Mm-hmm. yàlla def na peut-être amu amuñu woon dañu dépendoon ci UCG ak kii ak euh, tangi si naka xam nga siyaat mhm. la woon kii équipe mhm. assainissement fi amoon mhm. mais bi mu ñëwee moom yokk na recruter xale yi yokk na bi ñuy ñëw ci réalisation Gorée amul woon infrastructure socioculturelle parce que ñun ñi fa la ñu juddoo fa la ñu yaroo fa la ñu màggee fa la jàngee amul woon infrastructure amul woon infrastructure sanitaire poste de santé woot amu fa woon école yi dañ ko defaraat defaraat nañu école yi defar nañ fa centre socioculturel mais loolu yëpp ci ndimbalu état bi. ak mm-hmm. partenariat décentralisé nag. Mm-hmm. coopération bi ak surtout banque mondiale jàppale ñu lu bare. Mm-hmm. ci loolu ci la ñu benn centre socioculturel bu mucc ayib. te centre socioculturel boobu sax dafa nekk référence. parce que centre culturel boobu ñu dellu si waat dafa nekkoon palais boo xam ne. Mhm. am nañu ay mag yoo xam ne dund nañu presque quatre vingt douze ans bi ñu ñëwee fekk ñu réaliser ko. Mhm. jour boobu il n'en revenait pas dañu ne ndax ñoom bi ñu nekkee xale nii lañ ko fekkoon mu nekk en ruine. Mhm. mu nekk réalisation bu mucc ayib. ba pare amal askan bi njëriñ. parce que centre culturel foofu lañ njëkkoon def premier festival mondial des arts ak le premier président moo yóbbu Sénégal ak Gorée foo xam ne àdduna bi yëpp xam nañ ko léegi. ci ni mu mhm. expliqué mbirum jaam ak mbirum esclavage. Mhm. donc waaw. au delà ci socioculturel boobu nga lim ci wàllu jàng bekk jàngale bi ci wàllu éducation yan jéego ngeen ci def. ci wàllu éducation. ñu ngi réhabilité école yi réhabilité école maternelle. Mhm. am na jamono joo xam ne képp ku amoon âge dugg maternelle. Mhm. mairie bi daf la jël en ay partenaires. Mhm. soo amee âge dugg maternelle rek dañ leen dem jëli la sa kër. defal la say kayit inscrire la. partenaires yi ak mairie bi di ko fay. ba léegi ñu ngi ci loolu. koo am âge maternelle ñu dugal la. âge école primaire ñenn ñu ngi jàng primaire ñuy ñaan nag. parce que euh, éducation compétence transférée la. Mhm. mais ñu ñaan ministère éducation ak inspection yi. Mhm. ñu gën a bàyyi xel gore. Mhm. parce que euh, gore da ngay ñëw chaque matin soo xëyee. ci wàllu jàngale éducation bi laay wax nag. ko wax je prends en l'opinion goréenne. sooy xëyee six heures du matin nga gis xale yu ndaw yi. six ans sept ans huit ans neuf ans dix ans ba douze ans. ñoom ñëpp ñuy dugg ci salu bi six heures du matin ak sedd bi mhm. di dem di jàngi ji Dakar mhm. ce qui veut dire que am na lu sooxe tamit ci wàllu éducation bi lan moo ça c'est sur c'est sur le c'est sur le plan pédagogique ak mhm. déontologie mairie bi mun naa ne chaque année mu jox leen équipement nécessaire pour jàngale enseignants yi nekk gore yëpp fële ñu dëkk fay ñu loyer fay ñu location ci biir école ba la dëkk. Mhm. mais résultat yi aussi ça laisse à désirer. su ñu mhm. demee ba ñëpp di génne sa doom ci école ba di koy yóbbu. parce que di ko am na problème. Mhm. donc am na yaakaar naa ne war nañ def wax nañ ko ci benn réunion war nañ def les de l' éducation à Gorée. jotoon nañ si waxtaan sax ak waa inspection. waxtaanaat ci ak yi dinañ ci waxtaanaat. ak mairie bi ñu jéem a xool nu ñu defee les de l' éducation à parce que mun ñu comprendre saa ñu wane ñu ne cent pour cent réussite la am ci bac ci à tous les examens mhm. te ñi fay jàngale yëpp Dakar la jóge di ñëw te ñiy jàngale ci école primaire bi yëpp dëkk ci Gorée te résultats yi di sooxe donc ce qui veut dire que y problème lan mooy problème bi problème bi c'est sur le plan éducationnel parce que tey man du ma jàngalekat mhm. suñu demee ba kiy jàngale génne doomam ci école ba yóbbu ko ce qui veut dire am na problème mhm. donc parents woo jàngalekat yi ñu waxtaanee parce que maire bi moo école yi si tutelle am la nekk. Mhm. ñu jéem a xayma lan mooy problème yi jéem a lan mooy solution yi actuellement. ñu ngi ci si bi ñu ko defaraat à neuf mais suñ ko mhm. defaraatee à neuf ba pare te xale yi jàngee wuñ fa chaque matin ñu dem jàng ji Dakar. Mhm. amul sens. parce que day nekk après tout waa dëkkuwaay lay nekk rek pour enseignants yi. te man personnellement je le ici fi tey si rajo bi. ne su fekkee ne dañ leen jox ay doomu gore pour ñu jàngale yàq sàkku xam-xam si ñoom pour def leen xëy na ñun li ñu am ñoom suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu rakk yi am ko ñoom nag ñooy jàngalekat ñoo xam nan mooy kii éducation à pédagogie mm-hmm. ñun dañuy utal moyen nécessaire tegal leen cadre bi environnement bi pour réussite Mm-hmm. te Gorée defe naa loolu yëpp am na fa mm-hmm. parce que su fekkee Mariama Ba mun na ko am te jàngalekat yi Dakar lañu jàngalekat yi dëkk Gorée ci mm-hmm. ah, a parce que war nañu xoolaat tamit ñoom seen taxawaay Ba état bu Sénégal ni mu koy jàppale ak nombre d'élèves yi est-ce le cas su ma la nee école Gorée école primaire Gorée quatre-vingt-dix-huit élèves moo am non motuñu ko sixième Euh, donc euh, treize la woon. treize élèves. treize élèves moo nekkoon CM2 pour entrer en sixième. Mhm. pendant ce temps yeneen école yaa gis ñu ngi bousculé wu. Mhm. amuñu toog par trois par quatre ñenn ñi dañuy taxaw sax wéeru ci banc bi. Mhm. donc foofu réussite cent pour cent moo fa donc ça am na problème parce que treize élèves moo nekk ci classe CM2 bi. benn classe nag sixième benn la CM2 CM e. bu ci nekk benn la. ci wàllu am primaire am ngeen euh, ay école ci wàllu secondaire bi maanaam CM ak lycée fële ca Gorée. non non amul CM amul lycée. ku ci mhm. jógee foofu rek dañ lay ci école Dakar yi. Mhm. bon soit à euh, Saint-Louis c'est Clébert wala Lamine Gueye euh, Blaise Diagne aux alentours. est-ce que yéen ngi xaar pour jéem a def ay CM wala ay lycée wala espace bi moo fa amul. non il faut pas que ñu xaar pour jéem a def CM espace wala lycée. Mhm. mais est-ce que de CM lycée am na su fekkee da def CM. espace pour ñetti wala ñeenti nit est que tamit jar na ko. parce que déjà investissement boobu je pense que mënoon na dem feneen. Mhm. comme tu dis Gorée sorewul. parce que mhm. tey man su ma jógee Gorée pour dem jàngi lycée Lamine Gueye. Mhm. kiy jógee Thiaroye wala Pikine maa koy jiit. parce que circulation bi j'ai pas de contrainte de circulation. moo tax ma ne sànq suñu defee heure bu nekk mu am chaloupe loolu rek mooy problème bi. sinon damay jël chaloupe bi moo rëjël. j'arrive à temps à su ma doxee à quinze minutes maa ngi ñàkkul nag yore Sénégal la bokk suñu fa investir woon CM mbaa lycée mhm. xëy tamit eh, am na ñu dëkk Dakar aux alentours suñu leen fa affecté mhm. mais jànkonteel boobu la am tamit parce que fa ñuy xëy tamit di jël si chaloupe mhm. pour ñëw jàng si Gorée wàccaat di ñibbisi waaw day doon ah, beneen jafe-jafe mais Ba loolu ça peut se comprendre parce que c'est après les examens d'entrée en que les cent meilleures jeunes filles du Sénégal sont sélectionnées après concours Mhm. donc foofu mun nañu comprendre excellence bi élite bi mhm. loolu mun nañ ko comprendre environnement bi siyaasi yëpp kii mhm. et wane na ko parce que chaque année cent pour cent dañuy abaat tous les examens et concours donc Gorée école primaire bi war nañu mun toog waxtaanaat éducation naal jàmm su fekkee ne enseignants yi dañuy dem tamit bon ba xëy na xëy na fa arrangé wu leen wala kii ñu ah, mhm. ñu waxtaan daal à kii mhm. ñu affecté ñu ñeneen parce que mhm. dañuy defee école bi dem keneen ñëw donc su fekkee gis nañ tamit seen cadre bi peut-être arrangé wu leen ah, ñu demandé affectation wala ñu demandé ñu changer ñu indi parce que les enfants de Gorée ont droit à l'éducation et doivent réussir parce que toutes les conditions sont réunies chaque année dinañ leen jox fourniture. li ñuy jënd ci fourniture sax day ëpp. parce que lu soo ñëwee inscription kaye bic saak sax dañ la koy jox mhm. dañuy remercier tamit au doomu gore yi nekk bitim réew mhm. parce que biñ fi jàngee ba réussir ba yàlla may leen ñu génn chaque année di nga gis ku indi conteneur fourniture ki indi conteneur sac ki indi conteneur matériel pédagogique di ko jàppale dëkk bi mhm. voilà beneen euh, jafe-jafe ci leen Sénégal ndaw ñu bëri amuñu xëy est-ce que Gorée c'est le cas Gorée c'est le cas le cas parce que soo xoolee Gorée lenn moo koy doxal tourisme suñ ne tourisme mooy restauration mhm. artisanat mhm. donc ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci restauration yi deux ans yi yëpp mhm. dañu wàññi sax seen personnel parce que soo xoolee da nga am hôtel yu mag yi Dakar ñoo ko def donc waxtu ma laa gore bi nga xam ne si touriste la yaakaaroon bu ñëw si touriste ñëwee mu liggéey si touriste ñëw du liggéey donc dañuy wàññi seen personnel kooku jafe-jafe xëy la li ñu mën a def utal nañ leen ay formation temps bi ñu fiy def formation képp ku ci am qualification professionnelle ñu ngi lay orienté utal la foo xam ne di fa mun a dem liggéey. Mhm. chantier bu am Gorée on a demandé aux entrepreneurs yi gagné marché yi. Mhm. de privilégier la main d'œuvre locale. Mhm. ci yu mel noonu la ñu leen mun jàppale parce que Gorée peut-être c'est particulier. mais du fa am dafa am usine. wala société. wala ay administration yi liggéey. donc loolu la noonu la ñu mun jàppalee xale yi ci loolu ci beneen bi nag moo koy ñaan Mm-hmm. te ci buy port am nañu plus de cent sociétés fa nekk donc ñuy ñaan état bi tamit su fekkee ne loolu ñu yombalool ñu ko ñi nga xam ne jàng nañu ba am seen niveau yi ngeen mun orienté ci sociétés yooyu jàppale ñu mm-hmm. parce que état moo war a jàppale tamit commune de Gorée mm-hmm. mu dem maire bi war na jàppale jeunesse bi mais à parce que port kese lañu am donc tey solo bi suñu ne waxoon ne tey am na ay doomu Gorée yu fiy liggéey mais pour man c'est est que jotul ngeen lëngoo ak état bi vu que yéen fi ngeen nekk dafa xaw a enclavé gis nañ localité yu bëri ñoom dañuy lëngoo ak état bu Sénégal mën pour mën a soqali seen gox est-ce que yéen jotul ngeen def lool. mais ñun lëngoo nañu wax état bi gore amee lañu la ko état parce que tey soo xoolee ñun sénégalais lañu. Mhm. état état Sénégal la. Mhm. mairie la ñuy yore mairie démembrement état la. Mhm. donc lëngoo nañu. kon mairie démembrement état la. donc lëngoo nañu déjà. donc yónni suñu ay doléances di ko yóbbu. Mhm. comme on dit nag dafa am ay priorité parce que su fekkee ne Medina am na dix mille. Mhm. Ngor am cent. Mhm. ah soo amee cinq cent. defe naa su Medina jëlee trois cent. Euh, géejawaay jël cent kii jël kan parce que c'est non proportionnel mais tamit war nañu xalaat toujours ñu am ñaar pour gore suñu ngi def noonu dinañu mun a placer les jeunes bare parce que jàng nañu am na yenn niveau intellectuel yi am na yenn niveau qualification loolu yëpp may wax ni yëpp am na ci port bi société yëpp ngi ci port bi donc état ñu mun jàppale rek mm-hmm. ci wax ñu ubbil ñu ñu mm-hmm. daal dem dugal xale yi foofu ñu dem métier jàppale mm-hmm. seen bopp jàppale seen seen parents yi localité boobu di Gorée sax euh, budget bi ñaata la bon budget bi si xayma mi ngi toll ci trois cent et quelques millions parce que comme ni ma la ko rek. Mhm. budget Gorée amul société amul usine amul dara. Mhm. donc da ngay réfléchir c' est ñun li ñu may chance nag ci bu ñu mën a kii c' est si coopération décentralisée ak partenariat. ak mhm. public privé ak état bi. loolu moo ñu kii état nag mi ngi jàppale bu baax ci fonds de dotation bi ci projet PACASEN yi. ak euh, PAMA bi jàppale nañu. PUDC nag ñu ngi koy xaar. ak Promoville. ak Promoville yegg seegul foofu ba te ñun gore suñu bokk ci état bi war nañu bëgg nañ ñëw parce que am nañu tamit ñaakaar ñaam am nañu war a mën def ci wàllu environnement bi mm-hmm. parce que waxtu bi ñu toll soo xoolee environnement pour xam ko parce que érosion maritime bi mm-hmm. ni muy gagné Saint-Louis gagné ko côte bi yëpp mi ngi koy gagné Gorée aussi mm-hmm. donc suñu moytuwul fii ak ay at ah ñaanu ma ko yàlla gone mun na bokk tamit ci parti yoo xam ne une bonne partie dem na mhm. te su boobaa peut-être une bonne partie de l'histoire du Sénégal et de l'humanité mooy dem mhm. seetlu nañ jundi nga ko sax ci wàllu érosion côtière bi day sonal la sol fële ca Saint-Louis gis nañ am na bël bu fa am daanaka dafa sonal ci Langue de Barbarie boo demee Kayar ndox mi day gën di avancer di gënal sonal askan wi est-ce que Gorée par exemple moom moo ngi dund li ni mel mi ngi koy dind mais à un degré moins yi nga wax mhm. moo tax ma ne suñu si teelee jukk mhm. xëy na mun nañu euh, amoondir coût yi mhm. réparer ko mhm. mais suñu bàyyee nag muy law a ah, dina dem ba mel ni localité yooyu nga lim donc euh, ñuy ñaan aussi état bi ak décideurs yi. Mhm. ñu bàyyi xel ci loolu. Mhm. et li wax rek di lancer waale SOS parce que parti bi Mariama Ba nekk. Mhm. amoon na parti boo xam xale seen fii fa daan toog di def seen étude di réviser. géej gaa ngi commencé foofu. géej gaa ngi foofu te géej su amee ndox su amee yoon rek dootu ko téye. donc loolu tamit ñuy ñaan gaa yi teel ci jug ndax ñu mun a. bañ a mel ni localité yooyu ngay wax. mais lépp planification la est-ce que jotul ngeen tàmbali si liggéey léegi balaa mu balaa mooy ñëw dal seen kaw mu doon loo xamante urgence lay doon. non ñu ngi ciy liggéey ñu bu yàgg ñu ngi ciy liggéey am na ay études ñu ci defoon mais nag financement yi la xam nga c'est des gros chantiers yoo xam ne. Mhm. mën naa ne xëy état bi sax il faut mu wut ay partenaires. Mhm. pour mun ko defar. waxtu mhm. wala commune. donc euh, te donc état bi moo waroon mu ñëw taxawu ko def ko. Mhm. léegi Gorée commune de plein exercice la ñu ngi fàttali ko waat di relancer di continuer toujours di si liggéey. Mhm. di seet ay partenaires mais état bi parce que c' est des yoo xam ne grandes grosses xam ne état bi la. Mhm. comme Saint-Louis commune Saint-Louis c' une ville c' une commune. mais chantier yi c' est des de l' noonu la war a demee pour Gorée aussi. chantier yi nag moom ko tàmbalee ba léegi daanaka sax askan ba yeewoo ca seen yi ñoom ñoo ngi xaar ba léegi ndax euh, ba léegi concrétisation bi moo xaw a yéex ñu def transition wax ci wàllu économie muy wàllu koom mm-hmm. gis nañ ni Gorée la moom lu muy dundee mooy wàllu tourisme local bi mooy ñu jóge bitim réew ak ñuy jógee fii ci Sénégal mun fa amal seeni i te yooyu la sax koppar ci la Gorée di dund waaye seetlu nañ ni Covid 19 bi ba mu duggee ci réew mi depuis 2020 euh, ba léegi indi na ay gàllankoor ci wàllu tourisme locale bi ban xayma nga ñu mën a defal ci impact bi nga xam ne Covid 19 bi am na ko. mun naa ne sooy xayma. Mhm. soo xoolee ci àdduna bi yëpp. Mhm. soo ko jëlee par proportion ak superficie Gorée. Mhm. mooy partie bi gën a impacté ci àdduna bi. parce que Gorée vivait à quatre vingt quinze pour cent du tourisme. bi mu amee deux mille vingt Gorée tëju na pendant presque sept mois. kenn du dugg kenn du génn. Mhm. ñu limité rotation yi kuy dugg rek strict nécessaire te dañuy contrôler. Mhm. am na ay doomu gore yu fa dëkkoon sax bi ñu génnee dem si yenn zone yi dañuy wax ngeen toog seen parents yi foofu bañ. Mhm. Covid bu dugg fa. parce que c'était di nouveau lu bees la woon xamuñu ko woon te su fa duggoon ni ñu waxee ni muy wàllee gore fa tuuti woon xëy na en vingt quatre heures. ça pourrait faire loolu lañ dem bañ moo tax ñu tëjoon ko. ñu tëj au passage may remercier état bi à travers son ministère du tourisme et de transport aérien mm-hmm. parce que dans le fonds de résilience et de, de économique ils ont eu à soutenir mm -hmm. les acteurs touristiques du Gorée mm-hmm. muy restaurateurs yi aubergistes ak artisans yi les activités connexes mm-hmm. donc état bi jàpp neen ku ci nekk am na lu ñu la jox loo mënoon jëngatoo tuuti am na ñoo xam ne nag bi ma gisee dama leen naw parce que li ñu jot jot dem nañu si beneen secteur investir. Mhm. du ñu war a xalaat léegi beneen euh, système de euh, économie boo xam ne war nañ si mun a jëfandikoo dëgër. Mhm. parce que am na xam dafa dem yëngu si wàllu artisanat damay jël exemple rek. Mhm. bi ñu ko joxee subvention bi ñu ko dem dimbalee pour mu sukkandu parce que xam na ne parce que 6 mois tëj leen te tourisme ñëwatul xamuñu kañ lay ñëw. dafa dem ut benn partie am loué ko. commencé fa def petit commerce am di jaay ay denrées de première nécessité di ñuy soxla ubbi benn boutique am bu ndaw. Mhm. donc léegi tamit ciy gis boppam. Mhm. donc di ñaan nag yàlla def mbas mi gaaw fi jóge ci àdduna bi. Mhm. ba ñu dellu waat ndax au moins ñi xam ne ci loolu la ñuy ñu mun na dem. mais particularité Gorée Essan amul leneen loo fa mën a suqali développé ko du dul tourisme. et activité connexe artisanale loolu la. gis gis nañ ne Covid 19 bi demoon na ba ay jamono mu xawoon ralentir. ins bi dafa jógaat ñuy wax variant delta bi est-ce que euh, impact bi mu amoon ci première vague bi moom la amaat ba léegi impact bi am na ko toujours mhm. et comme ni ñu waxee rek état bi wax ko ñëpp wax ko je pense que responsabilité individuelle la mhm. képp kuy citoyen yow sa bopp yaa war a moytu mhm. parce que variant bi kenn xamul kan la ci kan lay jóge kenn xamul ci kii ñun nag sénégalais tàmm nañu di wax lu wax rek ñu ne maa mun maa kii na ñuy xool déglu ñi nga xam ne seen xel seen xam-xam na ci lool li ñuy wax ñu koy jëf di nag li ñu bàyyi ko borom bi parce que mhm. moo de mhm. àdduna bi yëpp la soo xoolee dañuy wax Gorée impact Gorée mais États-Unis ngi nii mhm. Japon ngi nii Chine ngi nii Inde ngi nii Israël ngi nii Turquie ngi nii partout partout dans le monde ñi nga xam ne ñoom lañ daan yaakaar sax su amee kii ñoom la ñu ootee wallu ñoom seen bopp dañu tëdd donc war nañu mun xool ne ñun sénégalais ci àdduna la ñu bokk ni mu dalee puissance yooyu mi ngi ñuy dal nañu jël suñu motuwaay amuñu doole yi ñooñu am nag donc mooy respect des mesures barrières mhm. topp ko topp ndigal yi ñuy wax mhm. ñu dem mhm. yenn ci association yi yëngu ci wàllu restaurant ak uh, ci wàllu bar ci gore génnoon nañ fi ci uh, fan yële wala sax ci weer yële ñoom uh, am na ñenn si ñi nga xam ne ci wàllu fond force covid 19 bi jotuñu woon ci si seen wàll ci koppar yi est loolu mën am nga si ay xibaar kooku man man man mi toog fii mun laa ci wax. parce que mm-hmm. maa dem représenté secteur touristique bi au niveau du ministère ak fond Covid bi. Mm-hmm. képp ku yëngu ci wàllu restauration wala aubergiste mm-hmm. wala guidage. wala artisanat. bi ñu laajee dossiers yi. maa ngi liste bi maa ngi xayma bi. ñu dugal seen dossier yëpp jot nañu. képp ku la ne jotuma. c'est parce que bi ñu ko waxee da nga ne deewuma bugguma. nañ ko wax fii mu leer il faut dire les choses la ñu amee. bi ñu ko amee te mun naa ne jox nañu sax li ëpp ñun li ñu dem yaakaar. Mhm. dem nañu bay ñoo xam ne du ci kuréel du ci kii ñoo xam ne dañuy xal si par ricochet la ñuy li bokk si jox nañ leen ci ndimbal bi. Mhm. donc foofu moom moom sànq moo tax ma ma remercier état ak ministère des transports aériens. Mhm. parce que si force Covid bi li ñu defal gore mun naan dañu leen benn loxo. xëy na nag. yàgg na parce que vague bi deuxième vague ñëw ba troisième vague ñëw. Mhm. ñu ñaanaat peut-être fekkee am na beneen ndimbal ñu xalaat leen. Mhm. waaye ku ne jotuma si force Covid bi na ñëw indi kayitam wax ne man Lamine Gueye maa fa ma génn kayit yi ñu jotoon ñëpp te ku nekk mun naa xam ñaa mun naa la wax ñaata nga jot. Mhm. kon ñu jotul woon maanaam dañoo binduwul woon ci yëf yi. bi ñu jotee tey dañu ñëw oote gore réunion képp kuy yëngu ci tourisme ñu wax la. wax la critères yi ak conditions yi. ñi Mm-hmm. ñi bugg a ñëpp defar nañ seen dossier mm-hmm. ñi defar seen dossier yëpp jot nañ mm-hmm. amul képp ku defar dossier déposé ko mu jóge Gorée dem te jotoo si force Covid bi gis nañ Gorée li nga ko say kàddu ci wàllu tourisme ci lay uh, ëpp doole wala sax koppar yi fay jógee moo gën a bëri laata Covid 19 bi ñaata visite nombre de visite ngeen doon am par bés ak tourisme daan nañu am euh, ay euh, quatre cent ba cinq cent tourisme par jour Mm-hmm. tourisme étranger étranger quand je dis l' Europe l' Afrique et mm-hmm. voilà mm-hmm. et les locaux tourisme mooy daal ku dëkkul Gorée daan nañ si am ba peut être huit cent wala sept cent par jour donc léegi suñu demee tourisme bi dañ daan dem tourisme bi daan doxal économie bi dëgg daan ñëw visite touristique yi nga xam daan jóge et puis doxal aéroport doxal transport doxal économie doxal guidage doxal agence yi doxal activité restaurant boobu moom mun naa ne dara ñëwatu dara ñëwatul. dara ñëwatul loolu day indi gàllankoor ci wàllu koom ba ca Gorée. waaw ah, na gàllankoor ci wàllu koom ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur boobu. Mhm. ci ñuy surtout ñuy ci wàllu bar ak. Mm-hmm. restaurant restauration waaw. est-ce que jamono jii ñoom ah, ah, lan mooy situation bi sur place. moo tax sànq war naa ko ca njëlbeen ba nee naa leen soo xoolee situation ñoom ñëpp dañu wàcc seen personnel. Mhm. mënuñu nag yaakaar. Mhm. yaakaar rek la ñu am. et ñu ngi am benn benn client ci tourisme local bi. parce que ñu ngi ñëw. et ci loolu tamit wàññi nañu seen ay menu mm-hmm. wàññi nañu seen ay lépp pour aussi mun ci am dërëm mm-hmm. parce que su fekkoon ne mi ngay jaar ñetti dërëm mm-hmm. ah nga ne naa ko jaayee ñaar dërëm pour mun ci am ñaar dërëm parce que tamit soo ko deful tamit ah question survie la foog nga jàpp si parce que da nga am ay charge da nga war a ay taxes da war a fay charge électricité da war a fay sa personnel bu mhm. néew bi nga am mhm. sans compter ñi nga teg ñu toog di xaar te ak mhm. ñooñu amu ci li ñu jàpp donc loolu tamit foog nga a def a ñëw suqali <clears throat> fii ci réewum Sénégal ci Dakar ñoom est-ce que ñoo ngi ñëw ak doole wala dafay évoluer à pas de caméléon foofu mun naa ne alhamdulilah ñuy jógee Dakar ñu ngi ñëw ak doole te kooku tamit ma am lu ma ci saluer parce que bi ñu waxee troisième vague ba léegi ak deuxième vague bi ni daaloon Gorée ba ñu tëj ko mm-hmm. yàlla dafa def bi ñu waxee ne il faut vivre avec le virus foofu may saluer responsabilité individuelle tous les citoyens tous les gens qui viennent à mm-hmm. parce que ñu ngi ñëw di respecter mesures barrières yi bien vrai bon mm-hmm. yàlla rek moo xam kan la ñu a wàll wala ko ànd ak feebar bi ñu ñaan daal ñu ci musalee ba léegi mu continuer ci musal loolu ñooñu continuer suqal économie Gorée ñëwatuñu hmm. ah dina amaana dina doy waar mm-hmm. ah. contribution bi nag takku na wala takku par rapport ak ñuy jógee bitim réew contribution bi ñuy jógee bitim réew takku amul mm-hmm. takkuwul ci wàllu parce que fu fukk daan ñëw mhm. non contribution si partenariat bi bon ça dépend ci ban partenariat ban domaine mhm. comme euh, am nañu projet yoo xam ne dans le compte partenariat décentralisé te mhm. dañ koy liggéey ak état du Sénégal parce que ministère comme projet assainissement boobu la mënuñu def assainissement te boole wuñu si ONAS mënuñu def assainissement te boole wuñu si CNO mënuñu def assainissement te boole wuñu en partie en partie état en particulier état bi ak commune bi commune sax day indi apport mhm. parce que tamit duñu la defal rek lépp toog ñu defal pare da indi ne dërëm laa am mhm. kii ne may naa la ñaar dërëm kii may indi ñetti ñu xool mhm. mais yooyu tamit dafa am ay retombées dafa am ay coût parce que ci visibilité bi ci kii bi tamit dafa am lu muy joxe ñoo ñu dugal seen àll ci biir ci tolluwaayu mbas mi covid 19 bi lan mooy situation bi ca Gorée ka est-ce yi bëri na fa wala kaa yi nag bon ah comme ni ñu ko waxee rek dem na ba léegi maladie bi jaratul sax ñu koy estimé ko laaj. Mhm. parce que képp koo gis rek am nga ku la jege ku mu dal ku mhm. kii ñuy wax rek na nit moytuwaat. Mhm. situation bi sa goree fi mu nekk ne ci xayma. mun nañu ne c'est infime. infime su amee benn ñaar ba ñett peut-être fa la yem. te peut-être c'est des cas sains pas grave. donc voilà loolu daal te. ñu ko contracté au passage yàlla wér mhm. parce que dañuy dem ñi mhm. tamit dañuy ñëw mhm. donc jommul kenn tout le monde est exposé donc euh, man mii di wax mii di jë bi may ñëw sax ci chaloupe bi laa duggoon bare naa nit bi wàccee tamit dugg naa taxi xam ma ko duggoon ci taxi bi ñëw naa damay dellu xam ma kan laa tasel xam ma kan laa fa laa koy jëlee waaw est-ce que par exemple gore am na ay district sanitaire wala sax ay CTE maanaam centre de traitement maanaam fi ñuy taxawoo ñuy amee jàngoro ji. Mm, CTE amu fa mais district sanitaire sud la ñu bokk. bu mm-hmm. Dakar. moom mm-hmm. mm, fi la mooy yomb ay Dakar Plateau Médina Samy bi nekk si zone boobu yooyu fa la ñu bokk. Mm-hmm. mais am nañu poste de santé. bu baax bu mucc ayib boo xam ne jël nañu devant yëpp. te yàlla suturaal nañu si côté ci wàll boobu. Mm. képp ki nga xam ne chaque mat nit yaa ngi dem di képp de Gorée ni mu comme ni ko waxee ni mu réewle même foofu am nañu chance di remercier au passage tamit eh, ICP bi fa nekk parce que mm. dinay dem di def ay consultation à domicile mm-hmm. di xool mag yi di waxtaan ak nit yi di waxtaan ak kuréel yi association yi ci mesure préventive yi ñu war a jël ci par rapport ak mbas bi et si seen santé bopp sax seen cadre liggéey mm-hmm. kooku moom est-ce que jël ngeen ay disposition pour jéem a faire face à la maladie maanaam ci wàllu sensibilisation bi ak gën a askan wi disposition si wàllu sensibilisation gën a ñaax askan bi soo xoolee. Mhm. maa ngi nii yore benn masque li ñu ci bind. Mhm. jeune volontaire goréen contre ah, la pandémie contre la pandémie mhm. bi pandémie génnee mars 2020 lañ ko defar te mhm. jeunes étudiants yi ñoom spontanément ils sont constitués en volontaire ñu leen di remercier à passage parce que ñoom ñoo valoon reste volet sensibilisation bi yëpp ci loolu tamit fàttali ne amoon nañ fi ay partenaires ak ay bonne volonté goréen ñoo xam ne spontanément ils ont donné en nature en numéraire et voilà des denrées des produits tout les toutes les concessions de Gorée. Mhm. bu nekk dugal nañ fa dara. dugal mhm. nañ fa loo xam ne mun nga ci dund weer wax lu topp ñii am na ñu leen jox pour ñu jënd seen ay ration kii. te loolu jeune volontaire étudiants yi ñoo ko daan def ñooy yore sensibilisation te saa yu ne am benn mbootaay wala dajaloo ñoom dinañ ñëw taxaw wax a nit yi ne fu ñu respecter distance yi respecter mesure barrières yi di joxe gel di ko jox te ba léegi ñu ngi ko ñëw di joxe gel di sensibiliser nit fépp fooy dugg soo ñëwee ñu ne takkal sa masque mhm. wala solo gel mhm. da takkal sa masque wala jëlal gel mhm. maanaam seen wàllu activité yi ci wàllu sensibilisation yi am na résultat waaw am na résultat parce que sensibilisation boobu moo tax peut-être gore mun nañ ne épargner épargner wu ci ma pandémie bi ba léegi. Mhm. sensibilisation bi mais ñaan nag ñu war ko gën a dolliwaat yokkaat ko parce que tamit ñu bañ a def comme à l'image suñu ne affaire bi wàcce na rek ñun tamit ñu wàcc suñu loxo. Mhm. bi wàccee lañ ko war a gën a mun a def nag pour gën ko neutraliser. Mhm. je pense que donc c'est le cas de demander aussi lancer un appel ñu gën a doxaat ci sensibilisation bi population bi gën farlu tamit ci mesure barrière ni ñu ko daan defee. di protégé wu di projet protégente di jàppalante suñ gan ñëwee sax ñu yaatal ko yar ko mais quand même sensibiliser waale ko pour mu yóbbuwaale tamit parce que voilà addu ci leneen gore di patrimoine mondial di île bu historique ci wàllu maison des esclaves ban apport la fa am maison des esclaves apport bi mu ngi wax mooy li mu nekk patrimoine mondial historique parce que ñi daan ñëw Gorée yëpp mun nañ ne maison des esclaves bi moo tax ñu ñëw le hmm. fait que te loolu ci li tax ak li fa xewoon ci histoire moo tax ñu peut-être classifié Gorée patrimoine mondial mhm. ba nangu ne esclavage est un crime contre l'humanité àdduna bi yëpp nangu ko mhm. donc apport maison esclave loolu la parce que ñi ko dégg ci àdduna bi yëpp fu ñu munti nekk xëy na bi tax mi mhm. ñu ngi daan daw si di ñëw pour xool si Gorée te euh, impact bi képp kuy kilifa ci àdduna bi muy président de la république muy borom daraja doo munti toll am tour soo wàccee yi si gën a symbolique mooy bu Obama. Mhm. si gën a symbolique mooy bu Jean Paul II. Mhm. si gën a symbolique mooy bu Nelson Mandela. Mhm. bu James Brown et tant d'autres. ci wàllu apport bi sax est-ce que yooyu la sax euh, ville wala sax euh, maison d'esclave est-ce que yéen a ngi xool naka ngeen di def ba ku ko visiter rek di nga génne ay koppar teg ko si pour euh, xaalis yu mën a dellu ci maire bi. maison des esclaves dafa nekk démembrement ministère de la culture. sur tutelle la. comme mairie à faire percevoir des taxes sur les entrées payantes et autres. Mhm. comme ñoom dañuy fayeeku dañuy fay taxe ci mairie bi. Mhm. ah loolu képp la est-ce que jotul par exemple ngeen mën see waxtaan xool naka ngeen di def ba ku visiter rek génnee koppar xaalis bi mën a dem ci localité bi. xam nga tey soo ko euh, defee waxtaan. ku mhm. visiter génne koppar da ngay nit ki. et du imposer parce que nit ki tamit am na droit ñëw xam lan moo xewoon démb lii histoire. mu ñëw fay traverser chaloupe fay taxation service fay entre maison d'esclavage nga bu ko génneeloon encore koppar mhm. koy bàyyi ci xolam mhm. lu ko neex mu su ko defee ci commune bi mhm. am na partenariat yu bare su visité maison d'esclavage bi la est-ce que coopération yu bare ci ñëwoon visité maison d'esclavage bi fi la soo ko naree defee waxtaante maison d'esclavage état bi imposé na ku visité maison d'esclavage ah, su boobaa dafa fu man dafa nekk lu méngawul ak euh, yoon daal ak yoon démembrement ministère de la culture est-ce que yéen ngi liggéey ak euh, ministère de la culture Gorée Gorée dafa nekk le fait que mu nekk patrimoine classé patrimoine mondial dafa nekk sous tutelle ministère de la culture. Mm-hmm. mooy tutelle mm-hmm. euh, mm-hmm. la euh, ministère de la culture ak UNESCO. Euh, comme par exemple Gorée maison des esclaves nit ñi ni ñu ko doon visiter avant ak après nan la mel actuellement. actuellement tourisme local bi ñu ngi koy visiter et kooku may saluer tamit initiative bu baax loolu moo wane ne askanu Sénégal locaux yi xamuñu mhm. woon seen histoire ak seen une partie de leur de leur histoire mhm. parce que dañ naan ñëw rek rek sangu géej rek génnaat dem mhm. mais léegi ñu ngi koy visité bu baax ku ci ñëw di nga jéem a xam ne Animation Club fan la nekk dem visité ji ko waaw addu ci wàllu politique euh, Augustin Senghor mooy maire gore ci atum 2002 ba 2021 est-ce que moom par exemple day déposé waat candidature am pour laajaat baatu askan wi soo ma ne woon Lamine Gueye ndax yow da ngay déposé pour laajaat baatu askan bi dinaa la mun tontu. Mhm. mais soo ne est-ce que Augustin Senghor. est-ce que mhm. man war naa mun tontu ci turi Augustin Senghor. parce que Augustin Senghor mi ngi fi. Mhm. ay chef de cabinet mais candidature c'est une indi ah, man xëy na mun naa bëgg mu def mu continuer. mun naa bëgg du continuer. moom mun na bëgg a continuer mun na bañ a bëgg a ça tout dépend moom ci boppam moom mooy déposer candidature am mais nag pour Gorée. Mhm. sañ naa wax ne Augustin Senghor mosul déposer mhm. a a. Mhm. loolu moo ko tax a nekk deux mille ba deux mille vingt et un mosul a. saa yu jotee saa yu ne damay bàyyi li ñuy wax wax waxet. waxoon na ko sénégalais bu nekk da ngay wax waxet. parce que saa yoo yeewoon ne lii laay def génn si diggante bi nga dem def leneen. donc wax waxet la xoolaat li ñuy wax. tey contexte bi tey xam nga sànq wax naa la ko. Mhm. ne le monde évolue. Mhm. donc da ngay évoluer di ànd ak jamono. Mhm. waxtu bi tey tey tey tey tey. li ñu waxtaan fii. suba mun na nekk leneen. donc kon wax waxeet la. donc dañu xoolaat dëkk bi. c'est que dañu tàmm thème di jël ay thème foo. maa ngi déglu sax ñuy nekkaat ci yeneen rajo yi lu xew rek goloor yaa mburu ak soow. mais je pense que dañu war a toog waxtaan suñu biir def suñu introspection. xoolaat suñu bopp. xool fan la ñu war a jëm xool lan la ñu war a def pour suñu askan pour suñu mhm. dëkk pour suñu bopp mhm. bañ yaakaar lépp ci njiit bi ah. wala kii moo fal mu kii mhm. man lan laay defal sama bopp lan laay defal samay njaboot lan lay defal ñi ma fiy bàyyi ñi ñëw sama ginnaaw ëllëg man defe naa loolu moo am solo est que mën nañ xaar par exemple Lamine Gueye mu ci jéem a bokk ci wàllu sax élection locale yi wala loolu bokkul ci say ambition ba nit ku nekk ambition ngay dundee. Mhm. man waxuma la élection locale sax mën naa dem ba nekk ministre dëkk bi. mais selon la yoon la. waaw donc loolu la. bon uh-huh. fi mu nekk daal ñu ngi liggéey. Mhm. on parle de ouverture de liste électorale de révision. Mhm. mais suñu toogaatee xoolaat suñu biir waxtaanaat suñu njëgënaay. yenn impossible parce que lu nekk chaque chose en son temps. non justement wala. na waxtaan bi ñu toog fii mun naa génn sax dama ne ma ne waaw pourquoi du ma nekk maire. ma daal mhm. ne damay déposer sama candidature mhm. am naa ci droit. justement wàllu révision électorale liste bi ubbi nañ ko lan mooy situation bi sur place Gorée. ci bind bi situation bi ubbi nañ ko depuis le 31 juillet à mhm. Gorée comme un peu partout dans arrondissement Dakar bi. département Dakar. donc nit yaa ngi ñëw di inscrire benn benn. mais mhm. à l'image du Sénégal dañuy bàyyi ba dernier moment. Mhm. Mhm. yéen xam nga ko yéen a ngi fii. ñu daw. ñu daw après nag su boobaa ñëpp jug carte yi carte yi carte yi alors que ubbi nañ ko. communiqué nañ ci communiqué waat ci communiqué ci moo waxaat ko fii ne nit yi dem inscrit ñi bëgg a def seen changement nañ ñu def seen changement à jot ko à temps da ngay fagaru ndax ñu bañ laa bett kon euh, population bi ñëwul en masse. affaire population bi ñu ngi inscrit ñu ngi inscrit benn benn ñu ngi inscrit benn benn. ci ci ndaw ñi nag primo votant yi est-ce que ñoo ngi primo-votants yi ñoo ñëw borom 18 ans yi ñoo ñëw parce que ñi inscrire woon ba pare c'est eh, pour ñoom la sax. Mhm. <laughs> parce que man mi inscrire di voté mhm. yi ñoo ñëw di parce que révision liste électorale si ëpp solo mooy les primo-votants ñi nga xam ne ñooy inscrire pour am carte pour une première. ñu mhm. des ay changements yeeg kii yooyu amul solo. parce que suñu la changé wul fii am nga sa carte ba pare dem fi nga décoré nga voté. mais primo-votants yi nga ni ki démb la élection fédération sénégalaise bu football maître Augustin Senghor doon si janoo ak Madi Touré te maître Augustin Senghor mooy maire Gorée loolu ban gis-gis nga moom sax moo gañe kii di Madi Touré ban gis-gis nga si am. may koy félicité au passage. Mhm. parce que maire Gorée la doomu Gorée la mais doomu Sénégal la. Mhm. président de club la. Mhm. te président de club yi ñoo am droit déposer seen candidature. comme ni ñu ko waxee bi ñu suivee évolution bi déroulement bi yëpp. Mhm. di ko féliciter di féliciter Mari di féliciter tous les acteurs sportifs yi participer ci élection yi ba mu aboutir à consécration Augustin Senghor comme président pour un quatrième mandat. Mhm. mais ñu xam rek c'est le sport et moo gagné et Sénégal moo gagné. Mhm. parce que bi ñu génnee demul fenn. yóbbul ndam li gore. yóbbu ko fenn président fédération sénégalaise de football la. donc football Sénégal moo gagné. ko fal. ñoom ñooy président de club yi ñoom ñoo yore seen alal di investir ci football. Mhm. comme ni ci Madi bokkee di investir football. ñu wax ci centre yi mais mhm. bi ñuy xam ne centre yi dafa am c'est que équipe mag yi daf fi nekkoon muy ay club traditionnel mhm. ñu am ay base yàlla def évolution rek comme ni mu ko waxee jamono mooy dox rek évolution di dox dox ba ko Sénégal commencé am ay centre commencé am ay école de football commencé am ay centre yi loolu mooy wane développement donc processus la mhm. ci processus boobu suñu bëggee chaque fois dañuy méngale suñu bopp nag ak Europe soo waxee rek ñu ne professionnel du nii mais foog ñu xam fi ñu toll fa la ñu war a méngool mhm. suñu tolloo comme Europe ñu mhm. méngoo ak Europe tey Europe club boo gis Europe club boo gis dafa am centre am mais fii dañu bëgg jël centre yi rek tes ko dindi club yi no man son sama sago tey fu ñu am football bu foor région bu nekk benn équipe moo fay nekk mu nekk quatorze mu nekk quatorze équipes c' est possible. Mhm. Suisse commencé woon nañ ko quatre équipes xaw ma six la woon. loolu boobaa dina métti xam nga ku ci nekk ni nga toll xam nga dina métti ci capital bi. parce que mhm. c' est enjeu économique yi laa kii. Mhm. donc moo tax tu looy gis nañ ko teg autour de waxtaan ci. parce que ñëpp ko bokk ñëpp ko moom. soo xoolee enjeu économique on parle de football football local football kii mais nawetaan engouement bi mu am enjeu bi mu ko def. muy yow man suñu suñu ASC nawetaan parce que quartier bi la ma jug dem soutenir leen jàppale leen mhm. mais suñu nee équipe bu Gorée ci quartier bi Gorée laa dëkk ma toog ne ah donc gaawul a taw mhm. ngay jugee ci nawetaan jàppale ko parce que quartier bi la mhm. noonu nga war a jugee jugee ci équipe localité ba jàppale ko muy jaraaf ci Médina muy Gorée ca Gorée muy Njàmbur muy saltige muy Linguère ñëpp dañu war a jug jàpp ci parce que loolu mooy développé kii parce que coow li bare woon na tool ci élection yi torop sax ndax moom dafa waxoon mais réseaux sociaux yi dafa waxoon du déposer candidature am du ko mhm. laajaat jékki-jékki rek ni dafay laajaat am ay kuréel yu juddu ni Augustin Senghor warul sax warul sax bokk ci yooyu la élection ndax ci wàllu résultat ci ñeel fédération bi daanaka sax defu fi lu tax mu war a laajaat lii di fédération bi waaw loolu moom euh, nit ñoo koy wax rek xam nga mooy li ma wax dañu tàmm arbre à ak toog léegi gis nga agir faire des actions Mhm. moo ëpp doole wax mhm. dinaa dinaa dinaa dinaa da ngay def nit di gis di ko jëriñoo mu par par amal njëriñ askan bi nga avancé mhm. et man foofu laa ko mun juger parce que loolu laa gis ci moom yow yaa ngi Sénégal journaliste que maa ngi Sénégal démb li may naw kontaan parce que démb avant élection yi dama gis TFM dama koy tudd ngeen baal ma nag non TFM daf si rajo bi dañu def benn reportage bu extraordinaire ci notre frère Madi Touré expliquer le renouveau programme bi dafa war a changer askan bi di def ay rajo crochet. Mhm. élection yi jeex Augustin gagné trente minutes après ci journal télévisé ñu def reportage ci Augustin commencé def cursus am. ak mhm. carrière am daf ko médité fii la jaar jaar jaaram. Mhm. et pourtant même kii boobu ñoo dem wax ne waru ko def parce que renouveau bi nii la ñu tàllal micro bi ne la. donc après à la longue doo ko mën te ñëpp Sénégal donc yooyu tamit ñu war a bàyyi xel la di ci waxtaanaat di xool parce que dama gis ne tey ñun tey ñi nga xam ne dañu jàng football. Mhm. entraîneurs yi professeurs yi instructeurs yi seen xam-xam foofu la. Mhm. ñun bëgg bëgg rek la ñu am a seetaan. Mhm. suñu waxee ma xam jour bi dégg naa dem seetaan mais suñu toogee war leen woo débat ñi si ëpp wax ci débat bi jànguñu ko xamuñu ko dañu milité wul sax si équipe wala club. kuréel boobu nga def nañu signé nañu ay pétition ay kii. ñi ko jiite woon benn député la woon ancien politicien déggatuñ ko ci assemblée bi déggatuñ ko mais xool député boobu lu xew rek mu jóg <laughs> su politique xewee mu jóg su diine xewee mu jug su sport xewee mu jug mais kon kooku ay na moom Messi la war a nekk mm-hmm. parce que lépp moo ci am xam-xam te moo ci ëpp xalaat parce que tey bi ñu demee xam nga tey Sénégal football bi ñu ko waxee kuréel bi jugoon bi kuréel bi jógee dañu bind lettre yónnee ko FIFA FIFA tontu leen ne ne ñi xamuñ sax adresse parce que FIFA tamit kuréel la te kuréel dafa am ay am ay critères yoo siy bokkee am looy signé pour si laa bokk mhm. ñooñu su ñëwu ñu ne si lañu bokk FIFA reconnaître leen mhm. FIFA fédération yi la reconnaître mhm. wala acteurs yi football yi mais citoyen lambda bind ay pétition seen yónnee da ngay sonn sa bopp te nañu xam ne tey suñ ko defoon su amoon lu ñuy sanctionné lu ñu sanctionné Augustin Senghor du ñu sanctionné Sénégal la ñuy ñun ñëpp ñu toogaat dellu ginnaaw pour recommencer à zéro donc war nañuy xoolaat bu baax li ñuy def ak fi ñu jëm ak xoolaat suñu bopp mooy introspection bi ma waxoon sànq rek. Augustin Senghor ci wàllu cumul de fonction gis nañ moo jiite fédération bi nekk maire Gorée bokk ci FIFA xawma wala sax CAF naka noonu nekk président Gorée est-ce que loolu dina am jot pour liggéey ca Gorée. xam nga nee nga 2002 ba léegi Augustin Senghor mooy maire de Gorée. 2000 mm-hmm. ba léegi 2002 ba léegi Augustin Senghor mooy président US Gorée. Mm-hmm. US Gorée am 11 disciplines xaw ma Augustin yore liggéeyu boppam di avocat. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ko maître. Mm-hmm. muy liggéey suñu xaaree ba tey. Mm-hmm. di laajte ndax am na jot bi def naka la defoon am jot yore ko vingt ans yooyu. douze ans douze ans mais cumul de fonction bi mooy poser problème. mais plus que am na ñeneen ñu fi nekk mën nañ occuper poste yu mu yor. waa léegi ñeneen ñi fi nekk mën nañ ko utiliser Augustin waxul kenn bu mu samp ndëndam. waxul kenn bul ñëw xëccoo. nañu dem géej waa nga noonu. pourquoi moom mu war a toog ne man dama samp sama ndënd damay continuer ko doo continuer mhm. pourquoi mu toog ne damay samp sama ndënd am na ñeneen ñi moom dama ne man teg naa sama ndënd am nga droit teg sa ndënd keneen am na droit teg mhm. nañu ñëw teg seen ndënd bu ñu toog di ko wax ci rajo yi wala ci place publique yi du loolu affaire yi jëf la mhm. am nañ ci droit kenn terewu leen ko kenn terewul ko la preuve bi ñuy démarrer juróom benn candidat la woon wax nañ fi Liyu la wax fi Mbaye Diouf Dia wax fi Seer Seck wax fi Augustin Senghor ko sax Madi Touré la ñuy wax. moom mm-hmm. waxul dafa waxoon ne bàyyi na. Mm-hmm. ñëpp jàppaat mais acteurs yi football bi les ligues gis nga ñi Sénégal ñëpp gis nañ ko. Mm-hmm. liggéey ñoo ñëw dé déposé motion yi ne ñoo déposé candidature gis nañ seen ko. te tamit nit góor rek la mu nekk parce que bi mu daan soxla di leen laaj. di yëg di di ko jàppale bi ko ñooñu soxlee ne ko kaay yi dafa war a dem. te noonu la demee. amul leneen lu ci wax mais Sénégal moo ci gagné parce que lépp fii la yem. na ñu boole xol yi ñu boole lépp liggéey ndax Sénégal am ndam. te ñu nag bañee di wax ne coupe kenn mënu décréter coupe. Mhm. dégg naa sax keroog nit ñëw attaqué Aliou di ko wax yow coupe Aliou man dama koy defaan parce que mënoon na nekk français wala mu nekk anglais mais dafa ñibbisi non seulement dafa xeexal Sénégal takka ko brassard Sénégal jox ko tur ñëpp naw ko te biñ koy fal sénégalais ñoo ko falaa ah, ñoo fi yuuxu yuuxu yuuxu ba ñu tànn ko mhm. dañ ko war a gunge te noo taxaw di ko wax jox ma jox ma lu ñëpp moom ñëpp da ngay indi sa cotisation mais doo toog doo cotiser ba affaire bi du tontine kenn moomu ko du wax tibal bëri et puis da ngay liggéey ba yëfi sotti kii na la léegi puusal man maa war a jël résultat yi. Mhm. mais dafa xala doy waat tuuti tamit foog ñu xoolaat suñu boppa xool suñu biir. Aliou Cissé li mu tontu xale bi def ko ne man Sénégalais la maa la mag. Mhm. su ma bëggul dara du ma ñëw football Sénégal. Mhm. su ma bëggul woon gagné coupe ma football pour gagné ko. Mhm. wax sama la ma nekk entraîneur. Mhm. donc loolu mooy sama yitte gagné coupe. mais nag yàllaa koy joxe. mais ci wàllu jo gagné coupe yàlla moo koy joxe mais dafa laaj euh, lii di préalable gis nañu Sénégal amul sa stade bu ñu homologué ci premier pays ba nga xam ne moo jiite fii ci Afrique. loolu tamit d'accord naa si Sénégal amul stade bu ñu homologué man mii sax dama koy wax mu mun lu ma metti lool parce que ñun ñëpp dañu bëgg football. di ko biir di ko dund. Mhm. mais nag comme ni ñu waxee ñëpp xam nañ ko nañu leeral askan bi yëpp xam ne stade du football du fédération moo koy defar du Aliou moo koy defar état moo koy defar état moo ko moom. Mhm. fédération moomu ko Aliou moomu ko équipe moomu ko. Mhm. état moom moom ay stade am. nañu ñaan état mu jàppale ñu defaral ñu stade yi. au moins région bu nekk sax mu am fa benn stade bu mucc ayib. ndax au moins ñu yaakaar organiser coupe d'Afrique organiser ko. Mhm. parce que tamit ñaaw na lool Sénégal nekk première nation africaine depuis presque cinq ans mais saa yi ñu waxee ñu wax problème mu stade bu ñu homologué homologué mhm. donc loolu tamit dañuy ñaan état mu boole ci priorité stade amitié ngi nii nañ ko defaraat waxoon nañ ko fi nag. Mhm. ñu ngi xaar ba léegi suñu paree si loolu ñu defaral ñu dem ba jóob mais koppar yu jógee FIFA par exemple ak coupe du monde bi ba léegi ñoo ngi xaar pour ñu mën ko jëmmal ba léegi gisuñu dara te fédération bi ñu ngi leen ciy duut baaraam ci yi nga xam ne dañ ñoom dañuy bénéficier wu appui FIFA bi ba léegi xaalis bi duñ gis dara. question boobu dama lay poser même question bi parce que man je me considère comme toi comme supporter dégg rek lañ ci amoon. Mhm. bi ñu ne Sénégal gagné na am na koppar yu war a jóge FIFA. Mhm. ñëpp ko déggandoo. Mhm. bés bu ñu déggee Mhm. ah ñu xool lan lañ ciy def ah naka lañ ko war a séddalee pour mu dem ci acteurs yi parce que mhm. tamit fu ko fay nañu xam ne acteurs yi ñoo ko moom de mhm. man de loolu laa yaakaar mais comme dañu ne dégg nañu te duggagul kañ lay dugg loolu la ñuy laaj kañ lay dugg ak ah, lan moo tax duggul loolu daal ñu ngi koy laaj ni nga koy laajtee noonu laa koy laajtee bëgg nañ ci am ku ñu leeral la émission bi da ñoo ngi ci njeextal bi Lamine Gueye chef de cabinet du maire de Gorée ñu ngi lay eh, gërëm di rafetlu sa teewaay ci émission gox bi di la bàyyi nga tàggatoo waaw di leen jaajëfal maas di taajëfal sa techniciens yi nekk fii di euh, féliciter rajo Rewmi FM mhm. euh, di féliciter dëgg tamit euh, remercier auditeurs yi ñu déglu yëpp mhm. di di wax tamit ne di ko ñaan fii mhm. gox bi émission bu neex la mais pour mooy sama xalaat émission yi ñu bañ ko def ci ay studio rek Mhm, ñuy wàcc sur le terrain. dañuy wàcc sur le terrain. Mhm. su ngeen xamee ñii lañ fi yàlla teg ñooy yore instance de décision yi. Mhm. ñii ñooy askan bi. ñii ñooy ndaw ñi ñii ñooy mag ñooy xale yi ñu boole leen ñëpp ci plateau. ñu waxtaan parce que loo gis dañ koy pencoo. suñ ko pencoo rek je pense ci kanam rek lañ jëm. ñu bañ a toog ci studio yi comme ñoom parce tey su ma génnee ñëpp na Lamine Gueye dañ ko beral loxo bàyyi ko muy wax rek. li ma wax nag sans engagement. waaw te parce que loolu laa laa demoon nañ ci terrain bi foofu dina mun a am te débat ko xëy na li mu wax am na ñoo xam ne gis ñu seen bopp mun mhm. nañ ñu wax ñu échanger waxtaan ba trouver consensus boo xam ne moo arrangé ñëpp mhm. waaw man daal foofu laa bëgg tamit émission yi parce que yéen a mun a jàppale tamit askan bi ñu dem mhm. loolu daal ñu koy def ci gox ya voilà jërëjëf euh, di ko jaajëfal mu nekkoon Lamine Gueye chef de cabinet bu maire bu Gorée ki fare woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo ñu leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen joxate dig daja dimanche bii ñu dëgmal jërë ngeen jëf